المكة ليلة مولد النبي ليلة مولد ليلة مولد أبي وتولد جل مكة ليلة مولد النبي ليلة مولد النبي ليلة مولد أبي وتولد سمي أه، بوكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته su ngeen déggee li ñu yëkkati léegi ci xasaayitu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu yëkkati ko ci sunu waa kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu dinañ xam ni xew-xew bu rëy mooy xewati fii ci Patte d'Oie dañ leen koy fàttali mais xam nañ ñi sax fàttewu leen ko ndax kooku nga xam ni moo tax ñu toog fii tey day jëmm joo xam ni li mu liggéey ci Patte d'Oie liggéey ko fii ci Dakar ak ndar ga mu jóge kooku kenn du ko mën a fàtte muy alxaaji Sàmmandar Géey muy imam bis bu rëy bi ñu ko daan defal nag fii ci Padois fa tabaarakallaahu moo siwaat muy conférence bu mag boo xam ni ñu ngi ko jàpp muy anniversaire nekk fukkeel ak juróom-ñett muy dix-huitième année édition ñu koy def fii ci Padois ci buntu jumaa ji mu nekk nag xew-xew bu rëy boo xam ni mi ngi nekk dimanche juróom-ñeenti fan ci weeru avril deux mille vingt ah, gannaaw loolu nag maa ngi jox kàddu gi. sunu bàjjen Adja Leena Guèye bu paree ñu jox ko ki nga xam ni mooy Adja Fatou Seck fa tabaarakallaahu bu nu paree te ci suñu rakk alxaaju Souleymane Diouf. auzu billaahi mina sheytaani rajiim laa xawla walaa bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokk jullit yi ñoo ngi leen di béggee bu baax ci seen teewaay fii tey ci suñu mag ji nga xam ni mom lañu defal fi conférence Patte d'Oie at mu nek ñu dajé fi yalla ñu yalla may ñu téwé ko déwon ñu bare lépp luñ fi ñaan yalla naka sam borom ba nang té luñ ko ñaané yalla naka fekk fu mu tudd gannaaw bu ñu paasee loolu ñoo ngi ciy suñu grand frère papa Alioune Guèye di ci wo Amar Anta Guèye di ci wo Lamine Guèye di ci wo Pam Mama Guèye ak Amad jang Guèye di ci wo wa diaspora ñoo nga woon ak Jibi Sarr ca Ndar ndax jibi sar bu ken manke kar bi na fess del na ñepp ñew inshallah allah assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw bi ñu sante yàlla jund ci yelennt bi sallallahu alayhi wasallam sangu sangi ñu ngi nuyu ñepp bepp julit ñu ngi lay nuyu di jëlee kaddu gi nak ci digelu imam Salif gey bi ci padwa ndax dafa am lu am solo lu ñu deggmal muy euh, anniversaire imaam Samba Ndar Gueye bu ma jëlee kàddu gi nag jël naa ko ci turu coordonnateur Daouda Badji bu ma jëlee kàddu gi jël naa ko ci turu coordonnatrice Awa Jara bu ma jëlee kàddu gi jël naa ko ci turu secrétaire général Souleymane Diouf jël ko ci kàddu imaam Salif ak waa Padoa yëpp ginnaaw li ñu dégmal dafa am solo lool dañuy takku nag ñun waa Padoa comme niñ ko daan defee ba nga nii imaam Salif ci boppam bésam bii duñ ko xeebal ndax lépp loo xamante ne nii war waa Patte war nañ ko def daan te daan ko def nañ ci soobuwaat takk suñu ndigg teeg suñu ginnaaw imaam ngir jëmmal bés bi ngir bés bi ndax bés bi dafa am solo lool ci ñun bu loolu weesoo maa ngi woo bépp jigéen ndax maa ngi jëlee kàddu gi ci turu coordonnatrice Awa jara Mbacké moom mi nga xamante ne nii moo dëkk Patte d'Oie papaam doonoon ak imaam Samba Ndar ñuy feddali kollarewaat googu nga xamante ne ni waa Patte yaa ngi nii teew kon jigéenu Patte bu leen kenn jiitu ni leen daan jiitoo jigéenu Patte takku leen ni ngeen daan takkoo jigéenu Patte nañ def li daan def jëmmal bés bi ndax bi nga ko jëmmalee kat suñu imaam Salif Gueye la ñu jëmmal aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit ñi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ak sa tur ak sa sant bés bi ñuy dégmal di dix-huitième édition soppay Imam Samba bés bi mënuñu ko démarrer te wowuñu ci waa diaspora fa tabarakallah am nañ ci liggéey bu mucc ayib boo xam ne ñu ngi ko ciy def su ma nee waa diaspora tudd naa waa France waa France ay doom yi Padois ñoo xamante ne ci kër imaam sàmmandar lañu jàngee alxuraan ba waxtu bi may wax ak yéen nii seeni doom ñi ngi fi di jàng alxuraan ñooñu faw ñu woo leen ci bés bi rawatina waa Italie waa Italie ñoom tamit kenn demul ñu des ñoomit saa su nekk ñu ngi leen di déglu ah ñi ngi yónnee di wax ci bés bi incha allahu rabbi yàlla nañ ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye it waa Amérique tamit ñoom it ngàcce ngaa laama ñoom ñoom it saa su nekk ñu ngi woote di naan bés bi baa lépp yemm na fa tabaarakallah ñu ngi ciy woo bépp doomi Padois bu nekk ci diaspora tabarakallah deg ngeen kaddu yi fi rot lépp rafet na nuy contane ci sunu orateur yi ci rafetal gi nga xam rafetal nañ ko sunu bisu bay bi di sunu kilifa Samandar tabarakallah paddu wa ñepp ngi fi fa tabarakallah ndax imam saliw moko sekk ak ñi nga xamni moy wa paddu ah bu loolu passé nak tabarakallah dañuy joxe rek programme bis bi ndax xam nga bisu koor lay doon te bis bu xat lay doon

bon commencé nak bu ñol passé ci lañ nak 12h nak lañuy jël nak début du programme muy début conférence bi inshallah taala muy à partir de 12h ci lañuy commencé nak liguey bi 14h inshallah taala danañ def pause dem julli tisbar bu ñu julli tisbar nak 14h30 dañu def nak reprise des programmes 17h inshallah taala ci katanu borom bi danañu def deug deug li nga xamni moy julli takusan ak wazifa 19h ñu sante jaw ñi sant Seck ñoo ma gën a xam li war a xew mooy lan ndogu yi teraanga yi ak bernde yi foofu nag lañ koy joxee ci kattanu borom bi incha allahu taala ah léegi nag bu nu yàlla dimbalee ci mbaaxam am na ñoo xam ne ñoom la ñu jagleel bis bu bii muy les parrains ki nga xam ne mooy papa Atoumane Ndiaye ci parrains yi la bokk Seydina Alioune Ba ci parrains yi la bokk Adja Tangi dan dan faxa ci par marraine yi la bokk yaay Cissé ci marraine nii la bokk may a Ba ci marraine yi la bokk léegi nag tabaarakallaahu bis bi ku ne xam na ni ah le premier magistrat de la ville mooy may Ajaratu a Jéey moom la yàlla dogal tey mu yore mairie Padois kon nag dañuy yox ni kër booy dem da jaar ci buntu ba soxna may mu na mooy buntu Padois ndax moom la yàlla teg ci mairie bi kon moom moo fu war a jiitu kon léegi incha allahu taala ci kattanu borom bi léegi nag damay jox suma rakk waaye suma sëriñ suma kilifa bëgg ma lool bis bi bu teewee fu ne la may woo pour ma ñëw fekke ko yàlla nañ ko yàgg fekke tal ko imam Saliou incha allahu taala nu jox ko nag moom ci boppam moo xam ni programme bi tëddee mu wax ko bu pare nag ñaanal mbooloo mi incha allahu taala ba déwénati amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi sant yàlla di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamante ni moo ñu may kàttan moom yàlla may ñu ñu fekkewaat te tal ko ñu ko ciy sant moom suñu borom subhaanahu wa suñu woote bi li tax ñu koy woote ngir maanaam sant suñu borom ci xéewal yi nga xamante ni defalal na ko suñu waajur bi fi nekkee ci àddina doon ko liggéeyal ba bàyyi koo fi dem aljana ah, liggéey boobu nag ñu am yéene lamu mu daan def ñu def ko fa mu fa tankam ñu tek fa suñu tank ngir limu liggey baña nax say ah yàlla dafa dogal nak ñun ñepp kenn ku ci nekk bu non nga tok fi wax ci sama place waaye nak lu yalla dogal nak xeyna yalla man la jital jël liggey bi tek sama kanam waaye ñom ñepp ñi ngi sama ginnaw di sama irak kon nak ngeen ñepp ma ngi leen ci wo di leen sante di leen gërem di wax ni am nañu lool mbekté ci ñi nga xamanteni ni boobaak ñi ngi taxaw ci bësu bësu jëm ju baax ji muy imam samandar gay motax bës bi dama ko waxon di waxat ku ci tàbbiwul xam loolu ci nek waye borom borom mbir mi bësam bi yalla moko teyel bopam suñu borom moo koy defar te kenn ku ci nek ñi ngi la ci wo nga japp ci te xam sa jariñ la kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mënumaa lim ñëpp waye di sant ñëpp di di ñaanal jamm ñu ñaan yàlla ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasalliyan ya ilahi wajisiyan abadal anna muhammadana مختار في العدم واو واو حواجي واو waaw yow عنا lii anna muhammadan في mutaara fi l idami بحمد ربك واستغفر انه كان توابا يا جاعل النور بين الكيف والنور يا من امر اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله